soo daan lu ngeen gëm bay gaaral suñu yónnee sanga soo daan mooy bay looy dañuy sant yàlla nag ci ay xéewalam yàlla yàlla yàlla yàlla ñun dañ ko war a sant dañ ko war a sant sant ku dog te wér xoolal bay laay nee na bañu danumaa yàlla mi yàlla mi nu baax ba sunuy maam gàddaay ba gëm bàyyi laay ñu nit ñu ci gëm bàyyi laay war mu sant yàlla xam nga lu a sant law lu yaay ak koo mën a doon nanu sant mu mel ni sant gi rek laa bëggoon ñu bàyyi ci xel yow boroom xam-xam laa yoo xam kii woote woote bu rëy bii ñu dëgmal danga dama bëgg nga xool ci niteem ba pare xool li mu indi problème mu maati yu nan ko teg nele ak zuhuru mahdi lol kenn ko wax man nañu am problème nak far la kan la naka laa waaye kenn du wedd ni tire yi saxal nanu zuhuru mahdi ak nuzul isa ibn maryam far lay o borom xam-xam yi moy jëm ji di sayyidina imam nanu xol nanu xol mom mi wax wax ji moom mooy kan mooy ba mu juddoo bay Cheikh ba mu juddoo ba mu juddoo ba ni mu génn àddina 66 ans la nanu càmbar 66 ans yi paawaat woote bi 26 ans dundam gépp soo ko boolee 66 ans moom Seydina Limaamu woote bi vingt six ans rek la léegi jëlal soixante six nga génne quarante teg génne vingt six teg lan mooy quarante mooy booba wootee bu nanu tàmbalee ca leer bu kenn way waaw sëy naa ni ba leer gi jóge min bayti laay xaraam ba ñëw ci ndar nanu tàmbalee foofu mu am fa dunya kullu laylatin yaduru dunya bi ajmaiha am la guddi gu jot léegi wëndeelu du xool fan la war a fee kon yàlla gunge ko ca tànn ja leer ga wàcc na ci kan ci man alsaan kan mooy maam alsan borom xutbaaniyatul usma loolu ñi xam tasawuf xam maratibul awliya yi xam na lan mooy martabatul xutbaaniyatul usma maam alsan Thiaw mi woy jur Seydina Limaamu garaat boobu la takkoon fa yàlla du moroom ngir dul dégg maam ku ma ndóoy du mooy lay ñëpp xam nañ ni wali ñu yàlla kon xolal ñaar ñi ka meñ sayyidina ali ma xolal bay lay ba mu nekké ci ndiggu maam Alassane Thiaw ba jihaad ja tanal ko ba tan ka demé kon mo ko jité won délégation tànk Seydina Diop maam Alassane Thiaw ba nu ñëwé délégation bu ne ñu dalal ñu dalal wa tan ba Omar Fouti recevoir leen ba mu leen recevoir ne jàkk maam Alassane Thiaw xam ni kii mooy borom jamono ndax xam ne ni kii mooy borom xutbaane ci Ousmane maam Omar Foutiyou Tall wàcce wàcce ay bëtam gis leen Seydina Limaamu di wër ci ndiggu maam Alassane Thiaw waxal ak mayam ya mu ni yéen ñeenay ñan mun ko ñu ñooy waa tànk waa kaf weer mu ni takkaat leen seen bagage te ngeen dellu tànk gi ngeen jóge yéen du ngeen fekki diine diine leen di fekk si te su ngeen demee ku am doom na tudde limaamu ba nu ñëwee ku am doom tudde limaamu waaye du yàgg mu dem waaye ba ba maam kumba meññee ku tedd ki ñu tudde ko limaamu limaamu moomu nag moo fi ne di dox ci ndawam bari ay kéemaan lool moom Seydina Limaam su daan dox ci ëtt ba su tànkam takkee sobe ginnaaw bàyyi laay du déranger fekk di nuyu ak a seet foofu lay taxaw ba nu raxas ka mu dox bàyyi laay mesure benn ko nekk tuuti maam Alassane Thiaw ber ko nekk utal ka satala si jaada kurus maam ku ma ndooy yëngu xale bu ndaw nan lañ koy bére néeg utal ko kurus ak si mu ni ko kumandoo yaa ma gën a xam li ma def yow yaa ni ma woon ba nga demee sa to- sa sa teen gisoo ku la yen du ma wax ak yow ne yaay soo ma suturaalee ma génn yàlla du yàlla ko wax maam ku ma looy dal bàyyi laay sa loxo ngay dox rek nekk ab su ñëpp demee géej ji kaaya bàyyi laay kaaya seen maam gaal yëpp ay dem kenn du indi dara waaye bàyyi su ta yu teeree gaal ga fees waaye mooy mooy ko baax ku tàgg du jaay jën yëpp day maye rek day maye rek te booba wootee ko ba waa kër gi suñu yeexee duñu am lu ndawal sanga bi ne ci lool yenn saa yi mu dem tool su demee tool su tool ba ñoree ku romb mu ne la ut kaay ut ndaw kii mooy baxru nada kii mooy saarimul ada mooy seydina limaam ñu leen tab ndaw laa ngoogu ànd ak bàyye bàyyi saa yu yónnee li maa dal may mat mu ñëw la fay gis mu ni ko limaamu coow ana ana matt yi ma la yónni mu sëkk limaamu coow ana matt yi ma la yónni woon mu sëkk lan la koy toll li anna al asjaara tusallimuni wa tasjudi bàyyi manuma laal benn garab ndax dëkk bi óolu dëkk bi yëpp bëgg ko te booba wooteegul bàyyi am vingt sept ans ah ah bàyyi laay am vingt sept ans ba maam alsan ginnaa bi leer ga jóge ca kaw mooy sunu sikkar woowu mu téew muy dox di dox bay dugg nag ci ñeent fukki at fekk booba mu ngi jox ndeyam muy tomb di lele jaam yàlla yi ba ndey di ñu mujj ko tudda ndax mbaax ak mën a joxe lekk bàyyi laay di dox ay kilomètres pour ut ku feebar ba ñëw na maam kumba tëdd na bàyyi laay tëdd ba guddi gént géntam di dem tool ba mu xëyee ànd ak doomu nijaayam daaw da lan la ko ma doomu nijaay bii yàlla war na mu rëy mu ne ko loolu yàlla war na ma jigéen joo xamante ni ay mbiram rëy na ci dafa gënaat ñetti fan lan ca teg man ko mu doy gënaat bi lan moo xew bàyyi laay lekkul naanul waxul ak kenn nit di ko ni nga ni nga ni nga tedd sa ndey génn ba waxoo kenn lekkoo naanoo sëriñ Ablaay daana wax sunu xamoon ni sunu ko wax loolu ñu wet di wax kon duñ ko wax ba ñetti fan yamatee bàyyi laay laaj sërëm yi maam Adama Coro Njaay jox sër yu weex yaa ñu yees mu xëy bi su dimanche ja ginnaaw ba mu oowee soxnaam ya maam Faati Mbeng ak maam Farma naan ñu ngi leen yàlla jox na leen borom kër goo xamante ni jigéen dootu am borom kër gu mel ni man na ngeen ndax am na luy xew ñu xëy ca dimanche bàyyi laay tarax laa yoo sëy teñ loo yi di jot ca weeru saabaan ba ca mu jëkk ba ca bisu ba na aaju boo daaye laay yaa masara it si wal jini ini yëpp